baada ma amatana wa ilayhi nushur Rewmi FM nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar bi ci waxtu wi ngeen di ci ànd seen mbokk Ibrahima Drame ki ñi àndal ci wàllum xarala gi mooy suñu technicien bi di Basiru Sisi mbokk ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant yàlla buur bi ñu may xiiwal ya moom te njëriñu ko dara doyewu ko dara lu dul dakaa dencal ngir mu dottil ko ci kaw jaamam ña sant xatta ña bokkul sax ca ñi sant da leen di dottil xiiwal ya nekk fa moom buur bi tabaraka wa taala xiiwal fa nekk nag kenn munu koo lim kenn munu koo peeg kenn munu ta xam xéwal yi ñu toll ba ñu di ko gémm lim waaye xanaa rekk ñu doyloo ci soor ba ñu naan suratul zumar aaya ba fa nekk buur yàlla tabaraka wa taala di ñu won xéewal ya nekk fa moom te mu wàccee ko ci askanu jullit ñi waaye mu boole mboole mbindaafoon yay dukkat ci kaw suuf si ñu bokk yem ci xiiwal jooje moo tax buñ demee xool ca suratul zumar dinañ fa fekk aaya ba yàlla di fàttali doomu aadama bi ne ko yàlla moo yore kàttan ju toll ni moy faat bépp bakken jamono bu leen di faat nag mooy jamono bu ñuy suubu ci dee bu ndaw ba ñu naan nelaw buur yàlla ne ñu bakkan joo xamante ne yàlla mu ko faat diggantaan ci nelaw woowu muy nelaw nee na bakkan jooju de da koy ñamal da koy roof da koy jox virusu nelaw bu yemamaay du nelaw bu xóot ba muy nelaw waaye du doon ba bakken bay ñàkk nelaw kon ñu déggee ci ne façon nelawin ba ñu naan sëngéem walla jayaxu yàlla moo koy roof doomu aadama du bitig ba ngay dem ne ko jaay nelaw bu ñu naan jayaxu du magasin ba ngay dem ne ko jaay nelaw bu ñu naan sëngéem déedéet du nii lañ koy defee te doo ko ñaan yàlla ne ko dama bëgg nga may ma may nelaw nelawu jayaxu walla neyo nelawu singéem yàlla lay soob mu roof la la mel ni namu mu bëggee ngir nga nelaw ko ñuy ñaanal yàlla suñu garde corps yi nga xamante ne ñoom la yàlla nattoo ñuy saytu suñu kaaraange réew mi di force de l'ordre ya taxawe kaaraange réew mi moo xam ci frontière yi lañu moo xam fa waay di war a mën jaar ngir dugg ci biir réew mi ñafa fa taxaw saytu kaaraange ña ci biir réew mi yal na sàmm yal na leen yàlla dooleel yal na leen aar ndax ñooñu duñu def kom ñun nu def ñoom keroog ba ñu sooboo ci liggéeyu wottum kaaraange waa ca lañu tàqale ko nelaw bu foor ak nelaw bu duun ñoom donte ñàkk nelaw bokkul sax ci seen mbir waaye lañ ci def mooy mos kon kenn du ñoom yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla sàmm yal leen yàlla aar mooy suñu force de sécurité yi nga xamante ne ñoo ngi nekk ci frontières yi ñoo ngi nekk fépp foo xamante ne njort nañu ne nit mën na fa war a mën dugg ñoom ñooy saytu ñooñee yal leen yàlla sàmm aar leen amin ya rabbal alamin mbokk yi buur yàlla ne ñu bakken yooyu di sóobu ci nelaw bu ndaw bu ñu naan sëngéem wala jayaxu man yàlla maa koy àtte ci ki ma neex mu ne ñu léegi bokk na ci sama kawti fi man yàlla fa yumsiku lati qada alayha al bi léegi man yàlla bokk na samay kawtif ak sama nameel may récupérer may faat bakken ba ma soob ci nelaw boobu bakken yi suubu man yàlla lay soob ma xool bakken ba ma neex ma jël ko ci nelaw boobee bakken jooju continuer di nelaw ba keroog bis pénc du musa yeew moo tax mu ne fa yumsiku moom mooy récupérer mooy jàpp moy téye alliti bakken joo xamante ne qada alayha dogal na ci bakken jooju almawt dee diggintaan kon ñu gé ñu déggee ci maanaa aaya bakken ba yàlla na la diggintaan mun bakken juy dee yàlla nee ci nelaw boobu laa koy récupérer waaye ci kawti fam bi léegi moom yàlla buur bi tabaraka wa taala mu ne ñu wa yursilul uxra ila ajalin musamma bokk na ci kawti fam moom yàlla mooy delloo bakken ja ko soob ci jëmm bu mu bàyyeekoo woon yàlla nee na man yàlla lay soob ma delloo bakken jama ci jëmm bu mu bàyyee jëmm jooju continuer di dundu ba keroog <clears throat> la ma dexalanteeg moom àpp ba ma dexalanteeg moom bu jotee ma daldi faat bakken jooju kon fii ñu déggee ci ne bu ñu yàlla wërsëgalee mu boole ñu ci bakken yi nga xamante ne dakaa delloo ci jëmm ya bakken ba bàyyee kon yonent bi ne ñu képp ku yàlla wërsëgal mu delloo la sa ruux lara war mooy boo yeewoo ci nelaw nga ne alhamdulillahi alladi axyaana baadama amatana wa ilayhi nushur mboole mi xeetu cant yu kawe yi ñeel nañu yàlla ndax buur yàlla mooy buur wi nga xamante ne mooma faat ci dee bu ndaw ba ñu naan nelaw gannaaw ci mu delloo ma sama ruux waaye nag wa ilayhi nushur ci moom lañuy ñuy dellu bu ñu faatoo dee dëggintaan nga xamante ne bu ñu nelawee dootuñu yeew bu ñu faatoo ci nelaw bi dootuñu ximmile ko ah bu ñuy ximmile ko duñu ximmile ko fenn ñu naree ximmile ci kenn ku dut fa yàlla kon da nga war a déggal ne ndegem yàlla mooy kilay faat ci nelaw ginnaaw ci mu delloo la sa bakkan yonent bi ne na nga delloo njukkal ne ko alhamdulillahi alladi mboolem xëytu cant yu kawe yi ak cant yu matale yi ñeel nañu yàlla lu tax ndax yàlla mooy buur bi nga xamante ne alladi axyaana muuma dundal baadama ma amatana gannaaw bu mu dogalee ci sama jëmm ji dee bu ndaw te mooy nelaw waaye nag wa ilayhi nushur ci moom yàlla dong mooy suñu dellukaay bu màgg bi keroog bu ñu taqalee ko àddina keroog bu ñu génnee ci dund àddina duñu ñu dellu ci kenn duñu ñu dellu fenn fu dut fa yàlla buur bi tabaraka wa moo tax ñu naan ko ci njeexantalu ñaan bi wa ilayhi nushur yàlla ñu yàlla déggloo maana adkaar bi baat bi lu muy wundu yal nañu ko yàlla déggloo yal nañu ko yàlla man ñu di ko tuddu saa su ne waaye yal na àpp sore yal nañu yàlla bàyyindi fii mu di delloo suñu ruux saa yu ñu ci dee bu ndaw ba ñu daan nelaw waaye saa yu ñu yàlla mee ñu ximmiliku tamit yal nañu yàlla wërsëgal suñu làmmiñ muy tudd baat ba yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent boobu moo ñu ne taraktu fiikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu baadi bàyyee naa leen ñaari mbir yi nga xamante ne fekk yéena ngeen mooy ci ñoom ñaar du ngeen masa sànku du ngeen masa riir sama ginnaaw mu joxoñal ñu kitaaballah di téere yàlla ba di alquraanul karim waaye nag ak doxalinam bu sell bi nga xamante ne mooy sunnatun mutahharatun nabawiyya muy sunna su set sunna su laab ba nga xamante ne moom la yonent bi doon dundu salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi yal nañu ko yàlla fayal sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot yéen a ngi fàttaliku woon démb bañ doon taxawoo ñu ngi taxawoon ak yéen képp koo xamante ne suurale na yàlla ci ay muamalaat ya muy jëf jëflante ba muy jëflanteeg nit ñi moo xam jëf ba muy jëflanteeg boromam moo xam jëflante ba muy jëflanteeg jëmmam walaw donte boppam lay jëflanteel waaye yàlla ne bakkan bu ne na suur la nga xamante ne mooy la koy xaar ëllëg bés pénc buur yàlla tabaraka wa taala wax ñu ko lenn suñu njiiti réew lenn suñu njiitu gouvernement bi lu ko dalee ci njiiti réew bi ko yàlla sàmm arko ak premier ministre ba koy jàppale ci doxalinu réew mi jamono yee ñun doon soññaate di dugal xemmemteef ju baax ci xolu askan bi donte am na ñu ko mën a taxawee waaye ñun dañ leen di fàttali lemminguk aaya alquran ba ñu yore te xel bu sell bu ne war nga kaa war a mën a te war nga kaa war a mën a nangu te war nga kaa war a mën a rafetlu ñu ne nañ leen jëmbat garab ñu ne jëmbat garab yi nag dafa am lu muy créer ci penc bi dafa am lu muy créer ci société bi dafa am lu muy créer ci nature bi ak ci dundinu doomu aadama naam écologistes yi ñu saytu xam-xamu environnement bi ah ñoom lañ ci xam seen xam-xam nañ leen doyloo loole waaye doxalinu jëmbët garab ci boppam la ci buur yàlla joxoñ subhaanahu wa taala moo gën a solo weneen xam-xam bu dul la yàlla joxoñ lafa fa bi joxoñ sala sallam moo gën a solo weneen xam-xam lu wuteeg la yonent joxoñ sallallahu alayhi wa kon bu dee buur tabaaraka wa bokk na ci limu joxoñal doomu aadama bi ne ko képp ku di jëfkatu lu baax defalu loolu baax loolu kenn ku dul sa bopp mi ko taxawee yow mi ko jëf yow yay góob résultat wu bénéfice jëf ju baax jooje ba tax na buur yàlla tabaraka wa mu di ñu melale ci aaya alqur'an ba nekk ci suratul ibrahim fa muy waxe yonent bi ngir xeetu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoomit ñu war a mën a bàyyi xel ndike jëf ju baax balaa nit di xam njëriñam yow mi ko taxawee yay njëkk a xam njëriñam ba tax na buur yàlla nañu melokaanu garab ju baax mu ngi mel ni wax ju baax melokaanu wax ju baax moo ngi mel ni garab wu baax ci suuf si ci trottoiru àddina moo tax buur yàlla ne yonent bi ne alam taara kayfa daraba masalan kalimatan tayyibatan ka sajaratin tayyibatin xanaa gisiloo xanaa xamoo xanaa yégoo na yàlla di melale waxju ju tey te dagan wax ju baax a neex a dagan neex a mu ngi mel ni garab ju neexa jëmbët ci kaw suuf si moo garab ju neex a jëmbat ci kaw suuf si na muy mel buur yàlla ne ñu asluha thaabitun asluha renam renu garab jooju saabitun mu ngi sax ci kaw suuf si mu ngi dëgër ci biir suuf si wax ju baax jooju tamit ndegeem istinbaat ba muy balle ren ba koy téye ndegem yaa ngi ko tibbee ci alquraan ndegem yaa ngi tibbee reenu wax ju baax jooju ci sunna yonent bi sallallahu alayhi looloo mel ni garab ju baax ba nga meññ ci kaw suuf si reen bi sax dàkk dëgër këj ci biir suuf si moo yàlla aha loo fa bugg wax bi léegi mu ne bokk na ci melokaanu garab ju baax jooju te mooy wax ju baax jooju rekk wa faruha fi sama car yeeg ban banqaas yeek meññeef yeeg xobi ñu ngi tiim ci kaw garab ji neex naa xool garab ji neex naa bëgg neex na jëmbët waaye garab ji reen bi dafa sax dëkk ci biir suuf si dëgër këj waaye garab bi bokk na ci melokaanam car yeeg banqaas xob yeeg meññeef ya muy meññe ñoo ngi féete ci kaw ku ko seen bëgg ko ku seen ker ba muy keral boppam nga nam dugg ci ron ker yi yàlla ne bi léegi bokk na ci njëriñu garab ju baax jooju tuuti ukulaha kulla hiinin bi isni rabbiha bokk na ci njëriñu garab ju baax de day nangoo joxe fruit ya muy meññ saa su ne ci ndigalu boromam bu dee garab bi manees nañ kaa méngale garabu màngo ñu ne garab bi am na cer bu neex am na ker gu fiix ker goo xamante ne boo duggee ci ron keru garab woowe di nga nelaw be doyal waaye ndegem ker gi rekk la lay offrir déedéet am na lum mu lay offrir waaw waaw gannaaw kër bu la offrir ana lu lay offrir encore tuuti ukulaha kulla hiinin saa yu mu meññee rekk day nangoo joxe meññe fambu doomu mango yamuy meññ bu dee garab garabu orange la walla garabu mandarine la wala garabu pamplemousse la saa yu mu meññee dalay nangoo offrir meññi fam jooju mu meññ moo ne boroom wax ju baax ku ko seen bëgg ko ku ko gis sopp ko ku ko seen nangoo jëflanteek moom waaye saa yoo toogeek moom dalay wax lalay njëriñ ci sa àddina ak sa alaxira du yem foofu de loo fekk mu yore ci poosam mu nar ko sédd ak yow te mu bàyyee lak la nga yore moo tax mu ne tuuti ukulaha melokaanu garab ju baax jooju de bokk na ci day nangoo joxe day nangu servir képp kuy nangu toog ci ron garab jooju meññee fam boobu ci ndigalu boromam buur yàlla ne ñu nii rekk laa koy defe wa yadribu llahu l amsaala linnaas nii la yàlla di jox cax nii la yàlla di melale wax ju baax damel ni garab ju baax ngir nit ñi war a mën bàyyi xel wax ju baax na mu amee importance waaye ngir nit ñi wara mëna bàyyi xel ne ji garab ju baax ci boppam daf di bénéfice bi nga xamante ne kenn na mënu koo takk yàlla ne nii lay joxe exemplaire nit ñi laallahum xëy na ñoom de yatadakkaruun dinañu war a mën a fàttali dinañu mën a fàttaliku te dinañu mën a dawal seen xel ba képp ku fàtte wax ju baax boo déggee melokaan ba aaya bi junju ci wax ju baax daa mel ni garab ju baax nga war a mën a opte di wax wax ju baax te suñ jamono ji tey waxkat ñi bari nañu ñuy fay nit ñi ci plateau yeeg ci internet bi ngir ñuy wax nit ñi lu wuuteg wax ju baax ba aaya bi di junj fii fay nit ki ngir mu toog ci plateau di la xulool di jël sa paar mu di xuloo keneen koo xamante ne lépp loo ko nar a wax comme jombale nga kaa wax sa bopp jombale nga sa bopp pour wax loolu nit ki waaye kaay ma fay penda kaay ma fay paate kaay ma fay yoro walla ma fay diw sangam ngir mu dem toogal ma ci plateau bi mu di ma waxal ki ma bëgg waxal lu ñaaw moo ne yow mi ñu fay loolee xaalis boobu noonu ñu la fay ngir nga wax safaan lu baax ca kañ la ne nanka ka wax bu ñu fayee nit ki pour mu wax la loole est-ce que dina la neex tontu bi mooy déedéet kon ki la fay ngir nga waxal ko nit ki lu ñaaw bu ko nangu demal liggéey nga am la ngay war a mën a suturloo mu am barke waaye ñu fay la xaalis bu takku moo ne lu tax ñu fay la lii demal toogal ma ci plateau sangam walla demal toogal ma ci antenne nangam nang ma waxal diw sàngam lu méngoowul ak li am nang ko wax lu ñaaw moo ne ki ñi fay ngir mu wax la loole est-ce que dina la neex tontu bi mooy déedéet kon jamonoy xarala yu bees ñu nekk nii lu waay di wax tey nanga ka bàyyi xel jamono day dox melokaan bi nga nekkee tey day weesu dootoo ko mel amaana say sit nekk fi du ñàkk mu am ñuy génne vaar te temps vaar dafa xew ñu ñëw woon sa sët ñu ne ko yow la sa maam nekk fi di wax lii yow sa maam nekk melokaan wii ñu woon sa sët sa melokaan ba nga nekkee woon ci sa jamono bi nga nekk woon ca digg doole la nga doon wax nit ñi lu ñaaw la nga doon wax nit ñi ñu tegal ko sa sët ci jamonoy xarala yu bees ñi sa sët bi di mer fekk yow nekkatoo fi lay merloo sa sët yaa ko ko yóbbee waaye noonu la tamit képp ku opte nekkee nekkin bu rafet nekkin ju baax di wax lu baax di waxal nit ñi lu baax nekk fi nekkin ju baax képp ku ñu won sa sët ñu ne ko yow la sa maam meloo melokaan wi da doon ràbbaloo diggante ña nara ko da doon ñaw diggante ña nara féewaloo da doon dox tànku mbokk lii la doon wax ci plateau yi lii la doon wax ci antenne su ko defee sa doom dina bëgg walla sa sët woowu dina doon ku bëgg dina xam ne aa ah, ndekete man amoon naa fi maam joo xamante ne daanoon na taxawee taxawaay bu mucc ayib ba tax na sa set boobu saa yu mu naree jalgati du ñàkk ñu mel ni bàjjenu gox ya ñu yàlla wërsëgal ñuy dund ñoom wala lenn ci kilifa yu baax ba sa set boobu jamonoonteel ñu naan ko hee diw sàngam yoon bi nga sóobu du sa yoon kaay ma wax la la sa maam nekkee woon ci askan bi kaay ma woon la sa maam nekke woon ci pénc bi sa sët bi bu ñëwee ci peggu kilifa jooju amaana mu won ko la nga nekkee woon di ko def ci internet bi la nga nekkee woon di ko wax ci internet bi su ko defee sa sët boobu nar soobu ci ñàll bi sa sët boobu nara a soobu ci ñaay bi amaana bu gisee ne ndekete maan ndekete yàlla wóor sëgal na ma fi maam joo xamante ne wala wéyjur woo xamante ne ah daawul jëfandikoo yoon ba ma nara a suubu nii ndekete kooku yoonu garmi la suubu woon waxu garmi la dañu wax nopp garmi la yor jikkoy garmi la yor su ko defee sa set boobu daldi di ci ginnaaw bàyyi lamu nara nar a suubu woon kon li waa njiiti réew mi digal askan mu Sénégal nañ len len fekk ci loole ci jëmbat garab joo xamante ne dina méngoog aaya bañ doon jukki nii sànq ci suratul ibrahim te mooy alam tara kayfa daraba allahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba asluha thabitun wa faruha fi lsama tuuti ukulaha kulla xiinin bi izni rabbiha wa yadribu allahu lamsaalu linnaas laallahum yatadakkaruun ca suratul ibrahim képp ku dem ci saar bi di nga fekk aaya bi mu nekk foofu mbokk yi ndegem lii mooy lañ leen bëgg a fàttali ku suñu bopp kenn ku nekk donte di nga jëmbat benn garab sa buntu kër wala nga fay nit mu jëmbatalal garab ci sa dundu su ko defee mu méngoog xadisu yonentu alayhi wa fu mu naan maa min muslimin yagrisu garsan aw yazra'u zar'an fa yaakulu minhu bahimatan aw insaanun aw tayr illa kaana lahu bihi sadaqa nee amul bépp jullit bay jëmbat garab walla muy béy lañu war a béy mu am picc la mu lekk ci loolu mu béy wala doomu aadama mu am la mu lekk ci loolu mu jëmbët wala mu am bayima ba lekk ci loolu mu jëmbët loolu ñetti yemu la limal nii képp ku ci jëfandikoo li nga béy walla li nga jëmbët moo xam li nga béy la wala li nga jëmbët la moo xam garab képp ku si jëfandikoo ker geeg meññeef ci picc walla ci doomu aadama wala ci bayima ba jëfandikoo loole loolu mu jëfandikoo yonent bi nee na yàlla dina la ko soppil defal la ko sarax mbokk yi ba léegi waxtaan bi jeexagul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi saa'iliina mawla jalla wa ala an yaj'alana min alladina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana yal nañu yàlla boole ci ñi nga xamante ne bu ñu déggee kàddu dañuy nangoo dégg lu ci gën a rafet waaye dañuy nangoo jëfe lu ci gën a taaru yàlla mën na ko sañ na ko yal nañu ko buur yàlla defal amin ya rabbal alamin allahumma ya rabbi aati nufuusanaa taqwaaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha allahuma ya rabbi ati nufuusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha allahuma ya rabbi ihfad biladana min alfitan ma dahara minha wa ma batan allahuma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih illahumma a'immatana wa wulaata umuurina amin ya rabbal alamin allahuma ya rabbi nasaluka an taghfir lana warhamna amin baaraka allahu lii walakum fi lqur'ani alazim wa nafaani allahu wa iyaakum bima fihi min al ayaati wa dikri alhakim aqulu ma tasmaun salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu